sant ak ngërëm ñel na leen yéen ñi nga xam ni yéenay safoo chaîne bii di Buzz Actu 221 ginnaaw ay kàddu yi nga xam ni moom Maître El Hadji Diouf daal dina koy yëkkati jëme ko ci ki nga xam ni moo di Moustapha jaxate mi nga xam ni moo di client ci ginnaaw bi nga xam ne daal nañ koy teg loxo daal dina xamle moom Moustapha Diakhaté yëkkati woon na ay kàddu xamal ko ñi nga xam ne ñoo di ay njabootam ca loole moom Moustapha jaxate nekk na ki nga xam ni daal nañ ko woon convoqué aljuma foofee nga xam ni moo di division bu cybersécurité ngir kat daal di koy déglu moom ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ci li nga xam ni moo nekkoon atum 2012 ba jàpp 2017 mun na ne néegi ni démb yemo aljuma ajjuma 22 novembre 2024 ci lañ ko daal di fi nga xam ni moo di sécurité mu nekk acte bi nga xam ni jamono guñ toll nii moom Moustapha Diakhaté mujjul ñibbi benn yoon fi nga xam moo di këram ginnaaw bañ ko tegee garde à vue waaye nag moom Moustapha Diakhaté nekk na ki nga xam ni moom dañ ko daal di teg jamono guñ toll nii garde à vue ngir kat ay yëkkati kàddu yu ñaaw yi nga xam ni daal di na koy yëkkati jëme ko ci gouvernement bu yees bi de waaye jëmale ko ci ki nga xam ni moo di président de la république waaye jëmale ko ci askanu Sénégal loole sax tax na moom mi nga xam ni moo di moom mi nga xam ni daal dinay joxe ndigal procureur de la république bi nga xam ni moo di tribunal bu da grande instance hors classe de Dakar daal xamle ginnaaw bee lool moom mi nga xam ne moo di Moustapha Diakhaté nekkoon ku daal di bokk ci mouvement bi nga xam ni moo di mouvement aar doomi Séné doomi Sénégal mouvement boobu lee nekk mouvement pour la république et la démocrate jamono guñ toll nii moom Moustapha kàddu yi nga xam ni daal dina koy yëkkati ngi nekk kàddu yi teg ñàkk teggin yi nga xam ni mu ngi ko daal di waxee foofee nga xam ni moo di ginnaaw bi mu amee émission fii di 7TV wa foofee nekk nag jamono guñ toll nii Moustapha ku daal di miin télé boobu leen ndax bëri na lu muy fafee daal di jaar ci ay yi nga xam ni sur invitation lay doon loolee sax tax na jamono guñ toll nii mu daal di xamle la Sénégal la peuple Sénégal est maudit ginnaaw jël kàddu yi tax mu wax loolee du lenn lu dul naka la Sénégal askan bi ni mu toll nekk askan bu wóor bi ni ñu mën a daal di fale ki nga xam ni moo di président Bassirou Diomaye Diakhar fay mi nga xam ni amul benn yoon lu jëm ci wàllum expérience te amul benn yoon bi nga xam ni mus naa yor leen li nga xam dafa moom ci gouvernement wala ci li nga xam moo di moomeel sa état ba tax na mu daal di xam leen askan boobu leen naka la ñu mën a jëlee seen yaakaar di ko ko jox ngir di ko jox di ko fal ki nga xam moo di président Bassirou Diomaye di ko fal ki nga xam ni pour mu nekk président de la république jamono guñ nii mën nañ ne Sénégal gile nekk na Sénégal gi nga xam ni ak ñoom kat dañ naan nekk senegal bu peuple bu modit waaye nag gannaaw kàddu yooyu nekk nekk moom mi nga xam ni ak analyse la def moom ancien responsable ba APR bile ginnaaw ji mu nekk kàddu yi ñaaw yi nga xam ni gi loole sa tax na kii di avocat bi koy layal di wuye turu maître El Hadj Diouf nigi ni démb daal ak ki nga xam ni moo di maître amado Sall ginnaaw jee loolu daal di yëkkati kàddu xam leen ni kii di Moustapha Diakhaté nigi ni démb ginnaaw bañ ko déglu ko waroon nañ kaa mën a bàyyi mu dem fa nga xam ni moo di këram ba altine wala mercredi mu daal di delloowaat waaye téewam ba foofee amul benn yoon njariñ moom nga daal di xamle moom El Hadj nekk na ki nga xam ne moo di ak ki nga xam moo di Sall ñooy nekk ñoo ñoo ñooy daal di layal ki la di Moustapha waaye lu ci mënta am ba am nekk na moom Me El Hadj di xamle ki la di Moustapha Diakhaté nekk na ku ñu préparé waaye tamit nekk na ki nga xam ni homme de Dieu la nekk na ki nga xam nit yàlla la waaye nag daal di ne xamle jamono guñ toll nii moom Moustapha Diakhaté dafa daal di yëkkati woon ay kaddu ginnaaw ba mu jotee li nga xam ne moo di boobule mbir di plainte boobule daal di xamle ñii di ay njabootam lu ci munta am ba am jam jàpp leen ni jamono gi mooy jamono bi nga xam ni ci ngeen may mujj mun naa njort naa ni ci ngeen may mujjee gis waaye nag lu ci munta am ba am lu tax loole moom Moustapha daal di yëkkati yooyu la kaddu dafa daal di xamle ni amul benn yoon confiance jëme ko ci ñi nga xam ni ñoo daal di koy woolu rawat na nguur gi nga xam ne ñoo fi daal di nekk loolee nekk na acte yi nga xam ni lu ci munta am ba am am dañuy ñaan bu baax a baax Sénégal mim réew di Sénégal yàlla def fi jàmm ak salaam ñi nga xam ni dañ daal di war a wuyu yoon ku ci wuyu yoon tamit bu am laa jëflanteeg yoon yoon dina def li nga xam ni moo di liggéeyam ndax état bu yees bi nga xam ni moo fi nekk ginnaaw ba ñu amee eh, li nga xam ni moo di pouvoir législatif am pouvoir exécutif ñoom de président de la république monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal dina xamle woon dina def la tuuba ci li nga xam ni moo di gouvernement bi nga xam ni moom lay diriger mu nekk gouvernement bi nga xam ni kenn ku nekk luy sa ak ak sa ba mat sëkk rawat na lu jëm ci wàllum justice ki na nekk dina tëddee dina ci tëddee ñaaxanaay ba moom du ci commandé dara ñi nga xam ne ñoo yor boobule bànqaas ñoo ñooy def seen liggéey ba mu mat sëkk du teg kenn benn pression mu nekk acte bi nga xam ni lu daal di am solo la kàddu yi nga xam ne nag Moustapha Diakhaté daal na koy yëkkati jëm ko ñi nga xam ne ñoo di famille ngir kat ñàkk am yaakaar ci ñi nga xam ne ñoo di ñu ko woolu wala état bu yees bi lee moom moo xam li tax mu yëkkati boobule kàddu waaye nag lu ci mënta am ba am ñu ngi ñaan ci mim réew di Sénégal jàmm ak salaam sax fi